ñaanal yal na yàlla yal yàlla bu dul seen fan yàlla defal bu baax ñu ngi fii macha allah yal na yàlla defal cat yaayu biraan waaw ma jóob ramata moom moom ma waajal bi may ñëw directeur dama maam jëlal sa say ndox ak sa taxi ak say yëf ak sa hôtel tubaarkàlla fekkoon na borom bés bi waaj na def lépp lu ko wax ñu ngi ñaanal yàlla moom min na fii ñun min na mun fii li mu wax la ne ma sama présence ci moom dafa fort dafa dëgg man moom ak Ndeye Marie Ndiaye te waroon naa génne ay archives yoo xam ne. Hmm. boobu moom lu ndaw la. <laughs> loolu yàgg na waaye ñu ngi koy ñaanal liggéeyu ndeyam yàlla ko fa fekk. dugg naa léegi def quelques réglages hmm. xale yi waaj nañu. Hmm. xale yi waaj na xale yi waaj nañu xale yaa ngay waaj. waaw xale yaa ngi waaj de. monsieur xale yaa ngi waaj te xam naa jikko xale France. dama tata soda ak kii la wax ma ne il faut venir tôt bébé c'est pas tard na teel a ñëw. balaa incha allah dix heures. ñu commencé. Mhm. yëf yi neex. Mhm. ñu jàmbax jàmbax. Mhm. waaw waaw ci kàttan yàlla. Jël loo si wax. waaw mais xam nga ni sama yaay ji li mu wax man xamul tax ma bëgg ko. waaw jëkk naa waaw. ma defar ko mu neex. waaw daal fekk. daal yi ndax lépp laay jël. waaw Jordan nga sol. yow man du ma la bàyyi noonu bi pa soo jëlul ma maay. non non non non ah, man maa la war a jox ma yow amoo loo may jox man maa la war a jox.